yal na yàlla woyofal yan bi ci seen kaw te gunge leen ci li ñuy sàmm ñu ñëw ak yéen ci suñu juróom ñetteelu buntu ci burdatul madih Muhammadul Buseyri di ci wax kéemaan yi nga xam ne moom la yàlla def ci yonent bi ak njàmbarte ga mu ne raa ab kulubul ida an ba u bi'satihi ka nab atin aj falat xuflan min al ganami mu ne raa at yëngal na kulubul ida xolu noon yi waaw an ba ubbi asatihi xibaaru nubuwaam keroog bi mu feeñee dañu mel ni ay mbote yoo xam ne dañu nekkoon ci àll bi dégg gaynde yëmb noonu ñuy tiite tàqalikook seen sago keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñee ci jamono noonu la mel iblis bàjj bi sax dafa onk keroog moo tax noonu yi ko daan xeex mu ne maa daala yalqaahumu fi kulli muctariqin xataa xakaw bil qanaa taam laaman ala wadami mu ne musta dañ di daje gaañu ci guerre yoo xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko musaana attaqué guerre boo gisee yéeféer yi dañuy mel ni yàpp wu ñu teg ci kaw taabali buuse day gis ne seen yaram yi day xonk curru ak i jam-jam ak deret mu ne waddul firaara fa kaadu yaqbituuna bihi asla assaalat maa al oqbaani wa riqami raqami mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa yéeféer yi daanañu ngéejoo sax daw génn ci xeex bi abandonné daanañ dem sax ba da gis koo xam ne day ñeeku dee guerre bi day tàng bu mujj yow da nga naan man ak a neexoon ma dee génn ci fitna jër coono bi wala nga gis koo xam ne ay cëram dafa dakk nga seen tan yi ab xoob yi di ko fëkk di naaw moom nga seen tan mu fëkk ab loxo fëkk ab baaraam tan mu fëkk ab tànk nga naan ah kee de génn na ci xare bi noppalu ma ku mel noonu nag bu àggee foofu ca xare moo lay wan lim sumb mënatu caa dem waaw mu ne tamdi layaalin wala yadra'una iddataha maa lam yakun min layaali l ashhuri l urumi mu ne daanañ toll ay guddi yoo xam ne ci weeri xeex yi boo leen laajee fu weer wi toll dañuy jaxasoo ba duñ xam le premier lañ nekk wala la quinze ngir tiit gu ñu tiit lu dul ne dafa nekk ci weer yi yi nga xam ne yàlla daf ci xaraamal xeex boo leen laajee fu weer yooyu toll ñoom dañ lay wax fa weer wa toll kon ñooñu xam nga ni nekkatuñ woon ci jàmm ci feeñ gi yonent bi feeñoon sallallahu alayhi wa sallam mu lay wax nag feeñ gi mu feeñ ni mu meloon ak degré bi mu amoon ci seen biir mu ne ka annama diinu dayfun xalla saaxatahum bi kulli xarmin ila laxmil ida karimi diine dafa meloon ni gan boo xam ne dafa cëppeelu ci seen biir wàcc ci seen ëtt te li muy laaj mooy yàpp patron waaw gan bu dikk ci biir kër ne na borom kër gi génn moom laa soxla kooku gone yu ndaw yi taxu ñu koy wax noonu la diine meloon bi mu egsee patron yi la njëkk ciblé waaw parce que ñoom ñoo ci gënoon a dëgër bopp te dañuy rëy waaw bu ñu daan xeex nag mu ne bax yajurru baxra xamisin fawqa saabihatin yarmi bi mawjin min al abtaali multatimi da nga da ngay gis ñu daan def classement boo xam ne cinq cinq lañ ko daan classé waaw par cinq cinq lañ ko daan classé di ay jàmbaar yoo xam ne bu ñu dajeeg yéeféer yi dañuy mel ni duusu géej bu tege ci kaw da ngay gis ni géej boo taxawee nga gis duus yu tege ci kaw di jepp jeqar bi ko te fekk na la ca suuf sax ko ëpp waaye duus booba mooy wane yëngu-yëngu géej gi waaw noonu la jàmbaar yi meloon da ngay gis yéeféer boo xam ne buñ ko pesee dafay mel ni aw sagar daanu ji nële mu ne min kulli muntajibin lillahi muhtasibin yastu bi mustasilin lil kufri mustalimi dangay gis ku nangul yàlla wooteem bi danga koy seet rek ci misaal ñi nangu woote yàlla bi gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dee jaaxalu leen du seen problème déedéet dee jaaxalu leen du seen problème parce que xam nañ ne am na buur bu ñu war a dajee xam nañ ni am na lu mu leen sant ñu ngi góor góorgóorlu seen kem kàttan donte mënuñu ko matal ku mel noonu day àgg foo xam ne dootul ragal dee ñoom ñi nga xam ne nag àdduna képp li ñuy dund ñoom fa tabaarakallaahu ahsanal xaalixiina loo leen wax lu du yàgg leen fi duñ ko mën a dégg moo tax bu ñu mosee daje ci guerre rek guerre ba daf daan metti torop xatta gadat millatul islaami wa hiya bihim min baadi gurbatiha mawsulata rahimi waaw gannaaw bi nga xam ne diinal islaam dafa dafa feeñ ci beru ñépp beddi kenn nanguwu ci bokk waaye mujj na àgg foo xam ne dem nañ ba ku ni bëgg cee bokk ngir musal sa bopp foofu la diinal islaam àggoon bi yonent bi dem ci fatxu Makka booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd na ak mbooloo moo xam ne kenn xamul nu ñu toll kenn mënu ko takk demoon nañ ba ku bëgg ku bokkul ci lislaam yaa ngi wut mbokk mu ci bokk ngir mu mën la protéger nga mucc mu ne mag fuulatan minhum bi gayri abil wa gayri baalin falam taytam walam taimi lislaam dafa mujj mel ni ci seen biir xale bu amul wuyjur ba noppi gën a yaru ñépp wala jigéen ju amul borom kër ba noppi gën a ñoŋ ñëpp noonu la lislaam meloon ci seen biir jigéen ju amul borom kër mel na nga war a mel dëkk ci ab koñ te kenn mun laa gàkkal ci dara ñëpp xam nañ ne ku sàmm nga waaye xale bu amul wayjur ay wayjuram dañu teel a faatu jirim am liberté totale gën a yaru xale yi am wayjur war nañu xam ne yàllaa ci teg loxo te lislaam noonu la débuté moo tax mu ne humul jibaaru fasal musaad fasal anhum musaadimahum maa daara aminhum fi kulli mustadimi mu ne humul jibaalu saxaaba yi ay ay ay doj la ñu woon dañu dëgëroon comme ay montagne fasal anhum musaadimahum laa laajal seen adversaire yi lañ daan soog maa daara aminhum fi kulli mustadimin lan lañ gis ci buñ dajeek ñoom da nga ciy dajeek dañ ci daan gis nit nga xam ko démb bi mu duggagul ci lislaam mu doon ku xaw a xeebu ci yow waaye bi mu dugg ci lislaam nga yëg ne njàmbarte gi mu ànd ak ak cawarte gi mu ànd ak ci buy dajeeg yow dafa lay mujj yiim ba da ngay mujj ragal mu ne wasal xunaynan wasal badran wasal uxudan fusuula xatfin lahum adha min alwaxami mu ne laaj leen keroog ba ñu dajeeg jullit ñi ca xunayni laaj leen bi ñu dajeeg ñoom badar laaj leen ñoom bi ñu dajeeg jullit ñi ca uhud lan lañu gis keroog ci jàmbaar yooyu ñu doon tampaloog di xeex ak ñoom seen xare bi metti na métti goo xam ne mu gënoon a jommale ci ñoom niñ doon dee daf leen a jommal ba mel ni mbas wala sax moroom mbas ndax mbas moom bu ñu ko waxee fi mu toll nii yomb naa ràññee waaw corona xew na fi ñu fàttu ji takk ay masque laal ay gel wuti saabu sorente joxe mesure barrière waaye geen ak moom da xëy di xool sab xarit feebaru dara dalu ko ngeen rombante léegi nga rombaat ko fekk mu tëdd ci suuf doon ab nii dañu yéemu woon ci niñ daan dee waaw mu ne fasula xat fi ndoxum adaaminal waxam yi niñ daan faatoo dafa yéemi ci ñoom moo leen gënoon a jombal ci mbas al musdiril bii di xumran baadama waradat min al ida kulla muswadin min al lamami mu ne woy weex lañu woon buñ daan gongeeku ay gis yére yu weex la saxaaba yi daan sol def seen meeteel yi takk seen jaaj ji waaye dangay gis na buñ demee songi buñ dellu siwaatee ci après attaque bi da ngay gis koo xam ne mbubb mi day xonq cur ndax deret ji euh, ni muy nandalee jaaseem ci deret yéefeen yi waaw te ñi daan rey suñu rey koo xam ne màggat la ay xale yu xonq cur lañ daan rey toll ci seen digg doole féttéerlu weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bii na bi musmiril xatti ma tarakat aqlaamuhum xarfa jismin xayra mun ajimi mu ne seen fett yi moo rawoon pilim amul fenn foo xool ci yaramu yéeféer lu dul ne da nga gis ne rek dëbb nañ fa ak fett ba mel ni big buñ fa marqué waaw da ngay romb nit mu mel ni suñeel bu tëdd ndax ay fett yuñ ko jam loolu yéeme woon na trop mu ne isqaama fii ajaamil hayjaami euh, euh, niñ daan niñ daan niñ daan niñ daan niñ leen daan jame saaki may tumayyizuhum wal wardu yamtaadu fi bi bi si bi si bi siyama ani salami mu ne ñu ñaw jaasi lañu woon seen jaas yi dañ ko daan ñawal ba mu ñaw bu ñu romboo li lay wan ni saxaaba yi ñu ngi lay romb xetu ndimbal gi ñu daan àndal ak xet gu neex gi moo lay wan ni ñii yaa ngi dajeek ay jàmbaar parce que booba am na lu rax ci seen biir mooy dogg bu mat sëkk lañ ànd mu ne tuuti ilayka riyaahu nasri nasruhum seen ngelawul ndimbal la moo la daan won ne gaa yaa ngi ñëw waaw da nga gis xet gu la xeeñ mu wóor la ne jàmbaar a ngi daw di ñëw fa taxsibu zahra fil akaami kulla kammi waaw dañu daan mel ni tuur tuur ni muy fesee ci kaw jànj noonu la saxaaba yi meloon ci kaw seen fas yi mu ne ka annahum fi zuhuri l qayli nabtu ruba min shiddati l xazmi la min shiddati l xuzumi mu ne saxaaba yi dañu meloon ni ci seen gannaaw yi naaru góor yi gàncaxu ruba nga xam ne gàncax gu sax ci det fu wow gàncax googu gis nga ni muy dëgëree reen yi day jàpp nee na noonu la saxaaba yi meloon ci seen digg fas yi ngir torug dogu waaye du torug nuxuragu takk seen bopp déedéet waaw mu ne taarab ka an euh, taarab qulubul ida min basihim faraqan kama tufarriqu bayna al bahmi wal buhumi waaw dañ daan naawal xolu xolu xolu xolu xolu yéeféer yi da gis ne buñ uppee ba jóg yëkkati seen jaas yi buur wut si leen lii génn ci ñoom dootul dellusi dañuy tàqali ko jaxasoo comme gaynde gu dugg ci biir ay ay ay mbote loolu nag li koy waral mooy waman takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu l usudu fi ajaamiha tajimi ku jël yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko sa wéeruwaay mu ne boo daje woon ak gaynde ci biir ab gott sax da nga ko dawloo waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo man loolu moom dong la ko yàlla jox wa man yactasim bika yaa xayral wara sarafan fa allahu xaafiduhu min ku lonk sa bopp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir tedd nga am yàlla mooy doon ku lay aar ci lépp lu nar a dajeeg yow ba faagaagal la mu ne walan tara doo gis min waliyin ci benn waliyun xayra muntasirin lu dul ne dimbandikoo na yonent bi bii ca moom wala min aduwin doo gise benn noonu bu def faas yonent bi xayra munqasimi lu dul ne dana junoog moom waaw ku sopp yonent bi ku ko sopp rek sa noonu la ku sopp yonent bi ku soppul yonent bi sa waaye ku sopp yonent bi ku sopp yonent bi sa bopp la waaw mu ne axalla ummatahu fi fi xirsi millatihi kan lay sa xalla ma al asbaa'i fi ajami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yiir na xeetam bi ci biir gottub lislaam dafa yiir xeetam bi ëmb leen couvrir leen kon tey boo demoon ci àll bi fekk fa gaynde gu jigéen gu ami doom ni mu uufe doom yi bala nga caa jël danga koy rey rek wala mu rey la nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la sévéré ci biir islam kam jadalat kalimatullahi min jadilin fiihi wa kam xasama alqur'ana min xasami mu ne bari waana ku dàggi wante baatub yàlla bi ci aju xuloo waaye bari waana it ku weranteeg alqur'an yow yaay mujj dem toogi rek xam ne alqur'an a nekk ci dëgg xam-xam bareewu ko technique rëyewu ko loo mën a jàng ci addina boo egsee ci alqur'an rek da nga yëg ne da ngaa moo tax mu ne kafa fil ummiyina mujizatan fil jaahiliyati wa ta'dibi fil yutumi doyoon na sëkk xam-xam doyoon na sëkk kéemtaan ci yonent boo xam ne mi ngi feeñ ci jamono ci ay nit ñu bari xam nit ñu am éloquence ci wàllu wax yàlla feeñal fa yonent boo xam ne bi mu egsee ñoom borom xel yépp dañoo mujj wédam nee na kooku dong doyoon na doon sëkk kéemtaan kon nag yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla def ay soppi yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla nañu yàlla defal ñu yàgg a teewe gàmm te luñ ci jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla nañu ko yàlla nangul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu